est-ce que bëgg buzz wala nga bëgg jaay sa émission tax na yenn présentateurs yi ak yenn présentatrices yi di créer ay mise en scène yoo xamante ni amalul njariñ sénégalais ñu gis jamono yële ci ginnaaw ñaari présentatrices ci benn chaîne télévisée di dóorante di saagante ci plateau bi nga xamante ni moo ci gën a bees démb ñu gis ci émission bi nga xamante ni moom la Amdy Mignon ak Omoro di amal fële ca 2STV ay kurpañ yu mel ni mbàccum gerte ki nga xamante ni moo di Omoro waroo waxtaane li nga xamante ni moom mooy teraanga yi nga xamante ni def na ko ci tabaski gi Amdy Mignon ne ko du ci dal ndax ci coronavirus la ñu nekk coronavirus mi ngi rey suñuy doom mi ngi rey suñuy yaay mi ngi rey suñuy am di jàmm am di mi ñoo ne ko nag loolu la ñu war a waxtaani Omaro ne ko du ci dal ci noonu ci la Omaro jug plateau bi daal di dóor ki nga xamante ni moo di am di mi ñoo waaye nag loolu kutte na leen cher ndax waa 2STV ak ñi nga xamante ni ñoo yor direction ba nee nañ leen di teg daan mois boo xamante ni mise à émission boobu dootul am ah fi mu toll nii nag njàqare daal di ci ki nga xamante ni moo di Omaro ak ñi nga xamante ni moo di am di mi ñoo ak ñi nga xamante ni ñoo moomoon plateau télévision yi gannaaw ba ñenn ci sénégalais yi di naqarlu yenn colin yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci série yi ak yenn scènes yi nga xamante ni caractère sexuel dëgg la am ñeneen ñi di laaj est-ce que maison de production yi nekk ñu di def pornographie déguisée ba tax na waa Jamra daal di déposer trois plaintes contre la série infidèle ki nga xamante ni tama du ko ëppi buum du kenn ku dul actrice boobu moom Lena Gueye gannaaw ba mu nekkee ci infidèle di jouer ay scènes yu bon ay rôle yu bono bono daal di def taxaw seetlu daal di moom Lena daal di nee na lii mu jouer rôle moom leen ne jigéen ju am ay valeur la est-ce jotul ñu xoolaat yenn série yi nga xamante ni moom la teg ci télé yi ndax série yi xale yi dañ koy seetaan te xale lu ma gis yaakaar ni baax na te série yi lu ñuy wane du dara lu baax loo xamante ni mën nañ cee jariñu ay scènes yoo xamante ni caractère sexuel dong lañ ciy wane ñu gis série bi nga xamante ni moo di infidèle ba mu ñëwee ba léegi ay viom dafa yokk ndax lu bon dong lay wane beneen série bi nga xamante ni moo ñëw samp ndëndam du kenn kudul face cachée ni mi ngi yëngal jamono ñu gis ci daal di tëdd ab moo di braquetu parti seen may laaj fan la ñu jëm ak suñuy ndaw ëllëg may laaj waa Jamra lan moo ci seen taxawaay waa CNRA aussi tamit lan mooy seen liggéey ci loolu nga xamante ni maison de production yi ñu ngi koy def ki nga xamante ni démb moom la réseaux sociaux yi xëyee ki nga xamante ni moo jël recul du kenn ku dul Mariama Mariama Sénégal yi di ko tàccu naan ko bravo ma yaakaar ne Mariama dafa gagné trophée waaye Mariama nee na waa Evenprod dañ ko bëggoon a jouéloo benn rôle boo xamante ni moom mosu koo bëgg tey mosu ko bëgg ëllëg mu daal di bañ ba tëdd ca naaj ba waaye waa Evenprod daal di génne benn message bu nga xamante ni moom lii Mariama di wax nee nañ du dëgg tey du dëgg ëllëg te lépp loo xamante ni preuve danañ ko ko apporteel kon ñu yónni yàgg yàgg bawul dara mais li ma leen bëgg laaj yéen maison de production yi cinéma ngi ni def wala pornographie déguisée loolu tamit war naa leel ci bopp Sénégalais yi ndax Jamra gi fi ku dof dof rek mu rëq sa ndigg